jéege si naam mbedd Dakar yi fépp di ko waajal ca allée du centenaire ñu mën faa gis ay sapin yu mën ëpp 2 mètres si taxawaay garab yi nag si fet fendane yi la ëpp lu ñu koy gis ngir lu muy jëriñ si taaral jaaykat yi di si ji seen bopp. sant dépasser si jour yi quoi journée ah sant départ rek su jege see mën ngaa xëy suba lem 250 mille wala benn 300 sant yàlla rek non ren moom moo daax ndax gars yi dañ kaa gëj a def quoi xam nga daaw. gars yi liwuñu quoi sawaruñ si fête te travaux yi boobu ak si àggul woon mais instant yi ni mu paree nii xama nga gars yi mën a teg exposé gars yi ñëw jënd ren daal moo tane daaw. jënd sapin nag tàmbali na nekk lu ñu miin si jeexital at mii ñi dul ay chrétien sax di ko xëccoo ak ñoom lépp nag ngir bëggal xale yi. musulman yi bàyyiwuñu ko ak ñoom ñoom ñoo si gën a saf moom musulman yi catholique yi rarement la ñuy jënd rarement ngay jaay catholique <laughs> ñoom ñoo ko jël en main. dañuy bëggal xale yi pour bëggal xale yi la rek. am na ñoo xamante ni musulman yoo xamante ni te ko daa ko jënd chrétien yi. ànd ak loolu jafe-jafe yi ñàkkul si njaay mi dawalkat yi bëgg a jënd amuñu fu ñu taxawal seeni oto ba mën a waxaale. non affaire nag bu wax dëgg yàlla noonu. surtout BRT bi c'est jeu quoi. oto yi ñëw mais duñ am fu ñu taxaw seere ba mën a jënd ba xool lu bëgg. jeunesse daal vraiment. fi gis nga marché bi nu mel nii kenn newu fi daanaka oto bu dikk boo taxawee daanaka alkaati bi da lay jàpp wala nangu. kaa xam daal du am foo taxaw sax mooy loolu. Dakar yokk na taaram si jeexitalu at mii muy si mbedd mi wala si bërëbu jaayukaay yi fépp a ngi leer ak i sapin mu mel ni dëkk bi pare na ngir fete Noël.